tey ñu ngi bëgg dugg ci façon boo xam ni dafay jàngale mm-hmm. ah, fan la cangaay farata di waree moo tax mu ni faslun bu dana war alxuslu sangu set min salaasati asiya ak si ñetti mbir ñetti mbir daal si la sangu set di ware bi si njëkk aljanabati mooy janaba wal xaydi ak mbërëg mooy règle mooy règle bu dogee rek daga daal di sangu wan yi ak gëfin dereetu njuréel boobu noonu bu arrêté da nga daal di sangu sangu farata fal janaabatu janaba xismaane ñaari xaaj la ahaduma benn si ñoom ñaar xurujul mën yi mooy mu génnee mën yi bi lazzatin ànd ak bànneex muxtaadatin bu nu aadawo mooy bu nu miin bu nu xam daal nee na bu fekkee dafa génnee bànn mën yu si bànneex boo xam bu nu aadawo la te bànneex bu nu aadawo si diggante góor a jigéen lay xewee boobu daal nañu xam kon boobu bu génnee si loolu kon boobaa day waral mu sangu sangu farata mais bu dul loolu nag si yeneen bànneex la ko amee dafa kontaan dañ ko wax lu neex bu mu kontaan ba génnee mali yi kooku de du sangu sangu farata wala dafa tiit ba génnee mën kooku de du sangu sangu farata moo tax mu ni bi lasdatin si bànneex moxtaadatin bu nu aadawoo fii nawmin ci nelaw aw yaqazatin wala yëg bi jimaaxin si sëy aw xayri wala leneen lu dul sëy moo xam dafa am yooyu seetaan ba génnee mali kon boobaa danga daal di sangu sangu farata wa thani ñaareel bi maxibul xasafati mooy fatim xasaf fil farji si pay neen di la yàlla dénk foo ko mënti dugal koo mënti sëyal nee na kookaa boo paree da war a sangu-sangu farata moo xam ki ngay sëyal nit la wala du nit bàyyi maag yépp si yam daal foo ko mënti sëyal daal kooku moom da ngay sangu-sangu farata bu fekkee nit ki dafa ànd ak soxnaam sëy ak moom ba pare léegi moom génnewul sax mën yi mu daal dem sangu ji bu mu sangu jee ba pare nag toog ba si kanam a kanam man yi doog a ñëw kooku moom jarul ngay sanguwaat raxasal sa kalam rek te daal di jàpp dem julli ji moo tax mu ne wa saani ñaareel bi maxibul xasafati mooy fàddum xasaf fil farji si pay bu mu si mënti doon mu ne waman képp ku gént fii manaamihi si ay nelawam ka annahu ni ki moom yu jaamixu mu ngi sëy waaye walam yaxruj te génnul minhu si moom maniyun falaasee alay dara war si kii dafa gént di ànd ak jigéen léegi bu mu yeewoo nag xool tubayam dara génnul kook moom jarul ngay sang bu fekkoon dara dafa génn moom dem sangu ji mais fekkee dara génn kooku moom dara sa moo tax mu ne wamaan raa képp ku gént fii manaamiha si ay nelawam ka annahu mel ni ki moom yu jaamixu mu booloo maanaam mu ngi sëy walam yaxruj te génnul minhu si moom man maniyu fala chey alayhi dara war si mu ni waman wajada képp ku fekk fii saw bi siire man yen man yi yaabisan bu wow laa yadri taqamul mata asaabahu kañ la ka dal irtasala na sangu ba aada mu baamtu maa salla lu jullu woon min aaxiri nawmatin si mujjanteelu nelaw yoo xam ne naamaha nelawoon naka fii sa yére wala sa tubay ji nee na kii dafa xool tubay ji gis fi mënuy bu wow te xamul kañ nee na balaa ngay def dara sangu sangu farata ba pare léegi nga xool dernier jour ba nga xam ne simmi woon nga tubay jooju noonu léegi lu dox si diggante bi yëpp nga daal di julliwaat ka moo tax mu ne waman wajada képp ku fekk fii saw bi si yéreem man ni yéen man ni yaa bi san bu wow laa yadri ta xamul mata asaabahu kañ la ka dal irtasala na sangu ba aada mu baamtu maanaam mu julliwaat maa salla lu mu julli woon min aaxiri nawmati si mujjanteelu nelaw naamaha nelawoo naka fii hi sa tubay jooju noonu mm-hmm. kon dana si baax képp koo xam ne muy fanaanoo mu muy fanaanoo tubay te nar ko jullee bala ngay dem jumaaja nga vérifier tubay ba pare balaa ngay dem jumaaja dana si baax moo gën yëre dina dam xam naa ni taxaw foofu rek mu binee ne incha daal di eggale xaar si benn rek mu ni faslun mm-hmm. yajibu bu war alxusu sangu set min thalathati ashyaa ak règle mooy janaabatu janaba xismaani ñaari xaaj la ahaduhuma benn ci ñoom ñaar xurujul mani yi mu génnee mani yi bi lazzatin ànd ak bànneex muxtaadatin bunu miin fii nawmin ci nelaw aw yaqazatin wala yëg bi jimaaxan si sey aw xayri wala leneen lu dul sëy moo xam dafa am yooyu seetaan ba génne ko kooku tamit da ngaa war a sangu sangu farata wasaani ñaareel bi laxiibul xasafati mooy fàttul xasaf fil farji si pay mooy sey rek foo ko mënti sëy daal day war sangu sangu farata mu ne waman raa képp ku gént fii manaamihi si ay nelawam ka annahu moom yu jaamiu moo ngi sëy walam yaxruj te génnul minhu si moom maniyu kooku fa laa shay dara waru mu ni waman wajare képp ku fekk fii sawbihi bi yére maniyan maniy yaa bisan bu wow laa yadri te xamul mata asaabu kañ la kooku ixtasala na wa aada mu baamtu maa salla lu mu julli woon min aaxiri nawmatin sa mujjanteelu nelaw naamaha nelawoon na ko fii sa tubay jooju noonu léegi daal na xool daal dernier jour ba nga xam ne si mu woon a tubay jooju mu baamtu julli fi dox yëpp xam naa ni tax foofu beneen incha allah.